sabab mooy dafa am ay xale yoo xamante ne jeunes yu engagé nekkoon si TikTok bi défendre son excellence ñu jékki-jékki defante ay numéro taxawal benn mouvement tudde ko ànd doole président Macky Sall pour may pour may président Macky Sall doole pour mu mun a defaat deuxième quinquennat défendre ko loo xamante dañ koo def tay pour yàq xale yi taxaw nañ pour def ma ànd ak sama jeunes yi ak sama amazone yi ak xale yu góor yi ñu bëgg président Macky Sall te yàlla rek tax lonkuñu ci DG lonkuñu ci ministre kenn jëndalu leen connexion kenn jëndalu leen sampul leen wi kenn mayu leen kenn ku ci nekk li ngay def yaa koy defal sa sa doole bopp bu ñu amee kenn xamul ba pare sociale boo xamante ne li ma ci gën a neex di cotiser ku feebar ñu faj boo xamante ne danga soxla ordonnance ñu jëndal la ku am dëj ñu dem jaale la du ñu dem nag si ay ngénte yooyu mais li nga xamante ne nii moo gën a métti ci nit ki pour ñu soutenir ko ci ñu si loolu la ñuy dox muy social euh, waaw loolu gis nañ ni élection locale euh, kër gi am ñoo xam ne dañoo mer taxawaay ngeen war waaw lool nag moom moom moo moo tax sénégalais yi bëri jaaxle parce que dégg naa ñu président Macky Sall temps yi moom lan la lan moo tax tendance bi tourné président moo soxla leader yi nekk ci koñ yi amaana bu ñu defoon lu ñu war a def kon tey tey bu ñu defee élection législative at kii dañuy dañuy gagné mais bii damaa bëgg ñu xam ne président moo soxla te président nag dafa liggéey ci Sénégal loo xam te ñëpp mën nañu ci teg seen bët président mi ngi fépp mi ngi ci électricité mi ngi ci hôpital yi mi ngi ci université yi ngi fi fuy métti rek président bu ko deful à 100 pour cent defal na ko 90 pour cent lu ne fàng nag kenn du ko jeex lu ne fàng kenn du ko jeex xale yi na gis loolu nga xam ne président kat li mu liggéey benn président mosu ko fee liggéey ñu xam ne sociaux lu ñu wax mu ne président Macky Sall te moom mooy président Macky Sall son excellence le bâtisseur le visionnaire le travailleur le meilleur wax tuuti jëf lu bari. waaw léegi ñoom bu ñu deflee lu ñu war a def. ñun mouvement ànd doole président Macky moo tax ñu ñëw ñu ne ñu président direct ñoo ci réseaux sociaux yi di samp suñuy live di guerre ba léegi gis nañ tendance bi nu mu changé te kenn xamuñu te ndax ñoo xam ñoom liggéeyuñu moo tax bu ñu ñëwee ñun ci kenn dañoo ñëw rek indi suñu doole bopp suñu amee suñu 1000 francs cotisé bu ñu amee suñu 500 cotisé ñoo ko jëndal suñu bopp t-shirt yi ñoo koy jëndal suñu bopp les Amazon a ngi nii ñëpp lépp ñoo koy defal si vidéo ñu ñuy def di koy defal kenn ci dara wéeruñu ci benn responsable ndax bu ñu defoon li ñu war a def kenn ku nekk am nga sa gox responsable nga dem toppi ko. de ñu yabuñu constitution yabuñu loi état de droit lañ ne. Sénégal gi état de droit ku yàpp kii yoon amu ci Sénégal da ngaa fekk waa jàddoo yoon président rek yabul droit yabul état Sénégal yabul kii état ba naan day def deuxième quinquennat boo xamante ne nii. ki conseil constitutionnel validé ko bu ko validé ñu ànd ak moom takk daal di takk musóori rayante ba mu neex falaat ko ci péré ndax gisuñu ko fi tane son excellence gisuñu ko fi gën te on est paré pour tout kuy def sa alal di ko def si président Macky Sall kon bu la doolelee tuuti rek di ko falaat incha allah. waaw loolu xam nga chaque jour damay wax rek am na ñoo xamante ne opposant yi dañuy toog naan président liggéey na waaye. pourtant ñoom ke deuxième quinquennat bi ñu ba ñoom ñoo ko njëkk kii validé ci ñoom laa ko njëkk dégg ñu ne président bu jàllee 2019 am na droit defaat deuxième quinquennat 2024 kon nañ ko bàyyi mu doxal waay